mbokk yi ñu teewlu ci sénégal 7 point com daleen ak jàmm daleen ak jàmm li gën a fës dañ koy dooree rek ak li nga xamante ni rek moom moo di uh, coowal troisième mandat mu nekk coow boo xamante ni rek dafay gën di wéy di dam uh, bu ñu sukkandikoo rek ci journal bi di l'info l'info nag mu ngi xamal ci xët bi nu mu gën yaatoo rek ki nga xamante ni moom moo di uh, Mamadou Ndoye Mamadou Ndoye nekk ex secretaire général bu LD ci ay kàddoom ci journal bi di l'info di ñëwaat bu baax a baax rek ci coowal troisième mandat rawatina nag forcing bi nga xamante rek jàpp na ne ne euh, kii di président Macky Sall président de la République du Sénégal dafa rek bëgg a daal di entamé wala rek bëgg a daal di soobu si li nga xam te rek moom moo di wàllum troisième mandat te jàpp na ne risque yi si nekk moom njiiti réew mi Macky Sall lu mu koy daal di xelal rek mooy mu génn si raxasu ba set wecc ndaxte jàpp na ne rek wàllum troisième mandat moom bés bu ko defee rek dinañ ko daal di wan comme ni ko askan wi wanee woon kii di euh, njiital réew mi bu Sénégal di maître Abdoulaye Wade nekkoon président de la République du sax bay joxe exemple ki nga xam te rek moom moo di njiitu réew moomu ne nga xamante rek moo di Abdoulaye Wade ginnaaw nag ba mu daak euh, soobee woon si troisième mandat gis nañ euh, taxawaay bi ko sénégalais yi wan waaye tamit du yem foofu ndaxte dafa daal di euh, xamal rek boo demee sa réew bu mel ni Burkina Faso foofee tamit ki nga xamante rek moom moo di Blaise Compaoré ñëpp gis nañ ne rek Ah, si anam bi nga xamante rek moom la bëggoon daal di ah, forcé rek mbirum troisième mandat waaye si ah, jamono boobee ñi nga xamante rek ñoom ñoo askan bu Burkina Faso seetaanuñ ko rek mu daal di soobu si wàllum troisième mandat dañ ko rek daal di wan ginnaaw beneen exemple bi nga xamante rek moom moom Mamadou dundooy nekk ex secretaire général bu LD ginnaaw ay kàddam si journal bi di l'info daal nay xam le ne kii di Alpha Condé moom it fële sa duwaanu Guinée ginnaaw nag forcing troisième mandat bi nga xamante ni jot na ko fa def nag ñi nga xamante rek ñoom ñoo nekk foofee sa duwaanu euh, Guinée bàyyiwuñ ko benn yoon rek mu daal di àggale li nga xamante rek moom moo di euh, mandat am mu nekk ay kàddu yi nga xamante rek kii di euh, Mamadou Ndoye nekk ex secrétaire général bu LD ba léegi rek di xamal ne rek li nga xamante rek moom moo di élection législative yi ñu jot a génn moom Mamadou ndooy ay kàddu ba léegi rek si journal bi di info di xam ne rek ki nga xamante ni moom moo di njiiti réew mi Macky Sall dafa rek ñàkk li nga xamante rek moom moo di ab majorité si assemblée national ndaxte li nga xam ne rek moom moo di 82 euh, députés euh, la am si assemblée nationale si boobee jamono opposition bi rek daal di am li nga xamante rek moom moo di 83 euh, députés waaye nag transhumance bi nga xamante rek daal na ko si yokk ginnaaw nag kii di Papa Diop ba mu li nga xamante rek moom moo di la mouvance présidentielle moom Mamadou Ndoye di xam ne sax ne loolu terewul rek li nga xamante rek moom moo di opposition bi am majorité si assemblée nationale leneen kay la ñuy wax lu dul majorité absolue waaye majorité mécanique bi nga xamante rek moo am foofee si assemblée nationale dina permettre bu baax a baax ñi nga xamante rek ñoom ñooy député yi nekk si quatorzième législature bi mën a doxal bu baax a baax li nga xamante rek moom moo di seen politique si assemblée nationale beneen bi bokk na mbokk yi si li nga xamante rek moom moo di euh, coowal euh, retrouvailles euh, libéraux donc mu nekk loo xamante ne rek ñu si bëri jàpp nañ ne lii di parti démocratique sénégalais dafa war a rek daal di retrouver waat rek ak li nga xamante rek moom moo di nitam rawatina nag ñi nga xamante rek ñoom ñoo nekk si langue politique ba tax na sax ñi nga xamante rek ñoom ñoo nekk si kujje gi di daal di samp ab rek ne ndax loolee dina mën a nekk maanaam parti démocratique sénégalais ak li nga xamante rek moom moo di alliance pour la république rek ñu mën a daal di bokkaat baax a baax li nga xamante rek moomoo moo di ànd bi nga xamante rek àndi woon nañ ko di président Macky Sall ak ki nga xamante rek moom moo di l' président de la république yi di Abdoulaye Wade mu nekk ay mbir yoo xamante ni ñu si bëri jàpp nañ ne loolee sax xel xalaatu ko ndax gis nañ taxawaay bi nga xamante ni président Macky Sall am na ko si euh, ay nit yoo xamante ni dañ ko daal di euh, jot rejoindre si euh, palais de la république waaye tamit ànd bi nga xamante rek ñi ànd ak le président Abdoulaye Wade ñoom jàpp nañ ne xel xalaatul sax ñu àndaat ak ki nga xamante rek moom moo di président Macky Sall mu nekk ay mbir yoo xamante rek ñu si bëri jàpp nañ ne loolee xel xalaatu ko si ànd boo xamante ni euh, di daal di euh, coowal retrouvailles libérales mbokk yi ginnaaw nag ba mu daal di génnee àdduna def na ñetti at euh, dèjà si ginnaaw kii di feu Amath Dansokho Amath Dansokho nag nekkoon am politique boo xamante ni def na lu am solo si réew mi rawatina nag si wàllum politique ba tax na sax ay kàddu yi nga xamante rek jot nañ ko daal di seede moom Amath Dansokho bu ñu sukkandikoo rek si journal bi nga xamante rek moom moo di ngi xam le ne moom Amath Dansokho nekkoon na koo xamante ni rek ab panafricaniste la woon di def lu am am solo euh, si li nga xamante rek moom moo di si langum politique kii beneen seede boo xamante rek moom di euh, feu Amath Dansokho wala sax dem si yàlla si Amath Dansokho moom euh, ràññe woon nañ ko lool si koo xamante ni si jikko ju rafet la amoon waaye tamit si bëggoon lool li nga xamante rek moom moo di jàmm ak li nga xamante rek moom moo di stabilité waaye tamit bëggoon également li nga xamante rek moom moo di ab peuple am ndax si xeex boo xamante ni moom Amath Dansokho da ko doon xeex rek ngir rek nga xamante rek moom moo di réew mi mën a daal di am indépendance wala sax réew mi mën a am li nga xamante rek moom moo di jàmm ju sax yoo xamante ni kenn ku si nekk rek moom ngay ñaan yàlla beneen seede boo xamante ni ba léegi rek def nañ ko si euh, nem si yàlla si di Amath ko bokk na si koo xamante ni rek ràññee woon nañ ko lool si ay combat yoo xamante ni dafay daal di fësal boppam si baax a baax li nga xamante rek moom moo di si ngor waaye tamit si dignité ak lépp loo xamante ne wàllum liberté la Amath Dansokho génn àdduna di ko a jël ko euh, fa mu jugee mbokk internetu sénégal 7 point com euh, lii la ñeen indiloon li si gën a fës si xibaar yi wala sax li si gën a fës si actualité di leen jox dig daje ba altine ak jàmm jaa jëf